Vai, dead right. Oh, yeah, yeah, yeah. Long time to go. Opening go out. Wow, wow, ñun dañ ñu vers 10 euh, 39 minutes lañ ñu ñu ngi fi yegg vers Euh, dix heures quarante quatre les dañu pour un feu de chambre mais biñu yexé yegsee fekk nañ néeg bi pratiquement muy tak mais jot nañ ko fay si ak élément de la 21e compagnie àndaloon ak une lance donc euh, Q2 et Q3 lañ ko mujjee fayé quoi. néeg bi pratiquement bagage yëpp ñoo tak hein ah. parce que euh, ñu ne ñoom dañ ko yéex a la ventilation demeewul woon noonu moo tax mu activé wu donc bu mu gëna gaawé quoi. non li ko taal ba léegi xamaguñ ko léegi loolu dañ koy bàyyi si loxo police ñoom ñu def seen enquête pour mën a déterminer la cause waaw. bon amul cas grave amul personne blessée amul dara. pratiquement bagage yi rek ñoo yàqu lal armoire ak une certaine somme d' ba xam ne da ki fi yàqule déclaré na ko daf ko denceen si néeg bi daal ak ay bijoux yooyu. lii fi am nag dogal suñu borom la waaw parce que man xëy si xëy naa dem atelier bàyyi 10 heures demi si la ma sama tàkk. l'origine de l'incendie nak pour l'instant xamuñu ko mais xam nañ ne alal bari yàqu fi puisque maire bi la néegam il y avait une somme presque de 2 millions de francs CFA avec des bijoux en or dont deux bracelets deux chaînes en or avec des bagues ce daal moo fa nekkoon ak matériel ustensile maanaam ay coude affaire yooyu daal bagage ce loolu daal moo nekkoon ci une somme de 2 millions de francs CFA moo fa avec des bijoux en or. damaa naroon a dugg sama sët bi moma ma ma daan waaye bu du woon loolu man damay lakk ndax dama doon dugg ci biir ndax li na ci biir moma metti waaw. man denc naa sama xaalisu bopp ñaari million denc naa ko ci sama biir nek ak sama jaaro or ak sama ceenu or ak sama sama lépp rek sama lépp sama lépp sama yére yu baax yére yu baax lépp lakk na xanaa juróom-ñaari junni yi ma beroon yooyu bokku ci. si garaam bu bee laa ko moom laa doon moom lañ ma doon seetal fii waaw. télé bi yëpp lakk na. ëpp na 500000 kenn taalagu ko des na beneen bu bu ma doon taal sama doom ji bi mu jógee Italie la ma indi télé boobu boobu dañu ko naroon def ci biir salle bi. ba yàgg mu ne bàyyil ba ma ñëw ba ma ñëwaatee ma indi ma indi table boo xam ne day mën a ànd ak moom. télé bi romb 500000 nga naan la ngan di télé yooyu dafa ëpp na 500000. ndax damaa xataraay woon dugg ci biir ndax ay dafa am kayit yu baax yu fa nekk samay kayitu doom la ak xaalis bi ma yore. ak samay takkaay yëpp samay or ak samay lépp lépp lu ma amoon daal tàkk na lii daal laa dese woon bu ñu jàpp woon lii laa dese waaw lépp te damaa jógee marché sol lii continuer di jaay léegi ma dégg sama beneen goro bi naan wóor saapoor woo saapoor ma ne ko lu lu ñu dee saapoor gis nga kii moo ma pàdd bu ma pàddul woon damay dugg ci biir doon bëgg a sobee sama këyitu doom yi nekk foofu ak xaalis bi nga xam nga ñaari million dafa metti mag jëmm liggéey ñaari million denc ko ci néegam We'll be right back.